waaw xanaa xanaa nag di kontaan rek di ñaan yàlla rek luñ fi ñàkk ren bu déwénee yal na leen yàlla may lu ko Mamour Diallo di góor gu baax di kilifa gu baax gu bëgg Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ku xool lii mu def fi nii xam ni yonent bi rek a wóor te bi rek a jar macha allah fa tubaarikàlla na ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg di ko sumb ci projet ak ci ay activité yàlla ci yàlla dooleel waaw yàlla na da ko jigéen ju baax muy Binta Diallo muy jigéen joo xamante ni sii nii ku ko am téye ko muy jigéen joo xamante ni si une femme brave une femme sociale di ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla bàyyeeg boroom këram bi seen liggéey ànd li ñuy wut ci seeni activité yal na leen ko yàlla yombalal ndax macha allah lii dafa neex lii yonent bi rek ko waral ku xool nii ñu fi def nii xool bernde yi nit ñu ñëw ñu defar ba mu baax lii neex na torop il ñaan comme li nga wax un sentiment de fierté et de satisfaction parce que yaakaar DG Mamour Diallo lii ko commencé def ça fait 12 ans chaque année muy suis yonent bi salaay salaam mu nekk bés fonk buñu respecté ndax bi am chaque année muy invité ay ganam di invité ay xaritam di invité ay amis d'enfance am ay ensemble ñu fekk fi ju mi madame Diallo Binta une femme très joviale une femme bu nga xamanteni yaatal na bëgg na ñëpp safoo na ñëpp faale na ñëpp xam nga dañ naan na góor mooy sàq kër mais jigéen mooy yaatal mu nekk nit ku baax dalal ñu yaatal ñu ba ñu ñemee toog kon dañuy wax ni rek lépp luñ fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangu lépp luñ fi ñaan yàlla na ko yéen salaay wa salaam nangu. Mhm. effectivement Mamour moom ku ko xam-xam ni sama papa muy yëngu ci politique créer mouvement Dolli Macky en 2016 ñu créer ndoo ko ensemble ñu ñëw jàppale ko ba mu àgg fii mu àgg ba tey jii ñuy def Dolli national. mu yëngu ci politique mu nekk nit koo xamante ni li may wax chaque jour c'est un homme de défi ndax DG annonce bi ñu ko jox yaakaar naa boo fi ñëwee léegi yàggagul mais gis nañ amélioration yi nga xamante ne def na ko ci gis nañ avancement yi si nekk gis nañ inondation yi par rapport ak yeneen année yi passé gis nañ inondation nag moom mbiri yàlla la ndax taw mbiri yàlla la mais euh, jéego yi ci def yëpp ñëpp ñu ngi koy apprécier mu nekk nit ku moom tamit li may wax rek booy xool sax da nga naan il est plutôt plus compétent que sax politique parce que moom liggéey rek la xam parce que bi muy génn major de sa promotion à l'ENA ko xam xam ne kat la xam ne liggéeykat la loolu rek la xam ñu koy ñaanal bu baax a baax fi mu bëgg a egg ci politique yàlla na ko fa yàlla eggale ci barke Seydina Mouhamed te xam naa ni jàmbaar la daal nañ ko ñaanal <laughs>